waaw ziar naa leen di am contentement si teewaay bi ma am fii tey parce que comme li ma doon wax sànq fële euh, ay jullit lañ te lii dafa am solo donc voilà woote na ko ñam nga xool gis ne ñëpp déplacé wu nañ ci weeru koor c'est pas évident ñëw si ko ñëpp ñëw donc voilà dañ koy féliciter si lii di ko encourager di ko wax ne lépp lu ci séntu yàlla na ko ko borom bi defal ba ba mu weesu ay njortam incha allah. mën nañu xaar yéen ñaar ngeen def featuring. loolu combat bien sûr. jàmm ji moo ëpp solo lépp. tu vois tey euh, tey dama am contentement comme ni mu amee contentement. tu vois parce que góor yàlla la Baye Fall la ay ndaw lañ nag mënul ñàkk des fois xam nga ci game ci football ci lépp day am tu vois. mais lii mooy mujj quoi mooy jàmm ji nii surtout qu'on est des musulmans ah doon ay Baye boo bokk sëriñ tu donc euh, voilà li moo am solo pour man amna contentement bu rëy ñu accueillir ma fii ma ñëw toog et puis je me sens comme chez moi aussi donc di ko féliciter di ko encourager waat bu baax a baax a baax et puis lépp lu mu ci séntu suñu borom defal ko ko si incha allah.